barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan. ñu ngi sant yàlla bu baax ci ay xéewalam yi nga xamante ne buñ jéem a lim it duñ ko matal dañ tauddu ni'matallahi la tuxsuha daaw heure bi taxaw nañ fi ci ndigalu sëriñ bi ci buntu xidmaal ko ñaanoon fekkee déwén yàlla nangul nañu ko mu ànd yokkute ànd ak mbégte ànd ak ci zaahir ak ci baatin ñi ngi sant ci loolu sufiyanke yi dañuy wax ne ashukru saydul mawjudi qaydul mawjudi wa saydul mafqudi sant yàlla mbir la moo xamante ne xéewal wu fi nekk da koy tënk ba du dem ndax wala in shakartum la azidannakum yàlla wax na ne bu ngeen santee ma dolli leen waaye xéewal bi ñëwagut tamit dina ko dina ko bijji indi ko ñu ngi continuer di ko sant ci làmmiñi lottu ndax lii yëpp mu defal ñu ci mbaxam laak nga neelam rek waye du sax lu ñu yello waye mbaxam la rek ñi ngi koy ñaan ni xewale ni yalla na gëna barkel te yalla na gëna yok li nak xidma yu ndaw la ci nga xamantene serigne bi mi ngi koy def ngir jëmmal alquran mi nga xamne boko don top da nga gis yalla nan am naa wa anfiqu mimma razaqnaakum wa anfaqu naa razaqnaahum di wax ne ñii dundale nañ ci liñ leen jox waaye dundale leen yéen it ci liñ leen jox nga fekk heure bu nekk yàlla ak yenantu ñi ngi soññ nit ñi ci dimbale ndax yàlla lim may jaam yi ci xéewal mu nekk ci kaw suuf ëpp na leen xanaa rek dafa fekk ne ñenn ñi dañoo téye seen bos téye yoo si jàmbur tëdd si yaakaar ne ñoo ko ndax yàlla mooy may ñëpp waaye dana jël xéewal mbindeef yi jaarale ko ci ay mbindeef ñu bari ci ñooñ nag xéewal nit ñi danañ jaar seen loxo ñi dem ba fàtte ak yàlla ci xéewal boobu mooy ñu jox doomi aadama yi liñ ci moom alhamdulilah sëriñ bi fi mu jugee xam na ko fi jëm xam na ko moo tax xéewal yàlla yi lu bari bari bu jaaree ci loxoom rek liñ ci njëkk a soppandiku mooy mu fexe ba jaamu yàlla yi am ci seen wàll dafay mel ni lu laxaami dun waxoon ci bàyyi ne wajuduhu chadar madar fi lwara yakaadu fihim ailan la yadar xaw tuut tabem bi nga xamante ni wër na fépp xaw tuut rek tabe boobu du bàyyi kenn ku ñàkk waaye dafa fekk ne atte yàlla mooy ñi am ñi ñàkk waaye bu doon benn doomi aadama mun naa boole mayandoor ñëpp wallahi sëriñ bi du bàyyi kenn ku ñàkk waaye wan nañu ne bu amee fukk dana ko joxe ba mu amee fukk joxe na ko waaye ba mu demee ba am juróom-ñeenti téeméer tamit ba mu demee ba am ñeenti téeméer noonu la ko joxe comme ni mu doon joxee fukk nit mënut a nax yàlla boppam lay nax am na ñoo xam ne dañuy wan yàlla ne buñ amee joxe yàlla moo leen gën a xam seen biir ak seen biti waaye yàlla bu leen joxee tuuti ñu joxe bu demee ba bëri leen rek ñu téye seen bopp سرنج بوكر تنيون الحمد لله وعلي يب توب تانك بايلا وجمل يوني مولانا شيخ إبراهيم ميغا خمنة وننفق لا نبقي لا وخون دنيي دندلي دو صح دي رنك دارا بور سون بوب واي دنيي دندلي با دون ديسه دارا te lol dugut ci yak ndax yak moy dundale ci luddul yalla rek mm. waye budé li ngay def ni dang koy dundale ci yalla dëgg-dëgg loolu yàq nekku ci waaye dundal yoon yàlla la waaye ut yàlla la ut say borom la ci say morom sëriñ bi ci loolu la nekk ndax xam na te lim xam mi koy jëfee xam na ne min def yëpp ay njaboot yàlla lañ ku gën a baax ci ñoom ku yàlla gën a bëgg ci ñoom mooy ki nga xamante moo gën a bëgg njabot yalla yi te dama bëgg da fay feeñ ci sa ak mindé fi bo amé nga may leen sa sa jiko ya ba jot ñëpp sëriñ bi fa la toll fexe ba xam-xamam ya ba daj ñëpp mu jox ku nekk la ci xàqam waye fexe ba bi yalla jaarale ci loxom mu daj ñi mëna jox ñëpp té li lu tuuti la ci lool dëgg la ñeenti téeméeri xar a ngi nii. waaye lu tuuti la ci li muy joxe. mën naa joxe njëgi lu ko ëpp fuuf lu bokkut ak lii. waaye dafa fekk ne dimbalante ak jaamu yàlla yi mënut a ñàkk. te loolu lépp comme ni ñu ko waxee at bu jot di ci delluwaat mooy ne tànk Mawlana Cheikh Ibrahim lay roy. kenn ci mag ñi wéy na bàyyi ne taxaalu na daahu min kaffayhi dahran saxuxul wabli lu seyli dufaaqi da ngay jàpp ne bàyyi ni muy mayee sax comme taw waame la rek asamaan lañ xamee taw waaye mooy dafa mel ni loxo bàyyi ñooy taw ba nga xam ne buy mayee du xàmmee ki gën a mag ba ki ci gën a ndaw waaye képp kum daje rek jox na la sa wàll jox na la sa xàq te ne yaa nekk ci yoon yi bàyyi wala ñi ooteel la yaa nekk ci yoon yi bàyyi ay wax waru koo tegtale waaye jëf li day ni jëfi Mawlana Cheikh raay moo koy tegtale mooy sàmm sa xaq yàlla sàmm sa xaq ak sa bopp waaye sàmm sa xaq ak mbindeef yi mooy booy wax ci ñoom nga wax leen lu gën a rafet waaye booy jëf ñoom tamit nga jëflante ak ñoom jëflante bu gën a rafet bunt boobu la sëriñ bi nekk ñun ñii ñi taxaw eh, nekk bëgg a nekk ay liggéeykatam ci yoon boobu noonu ngir ñi am wàll ak cër bu law ci yoon boobu ñu ngi fekk suñu magi daara سيدنا Ousmane Diop ñu ngi fekk suñu mag al Oustaz Ahmad Diop ak mboolem mbokki taalibe yi Seyd Ibrahima Kane Salman Moussa ñii ñëpp nga xam ne bu sëriñ bi amee soxla dañuy fàtte nelaw dañuy fàtte noppalu dañuy fàtte lekk ngir xidma sëriñ bi te xam ci ñuy xidma ni kan la xam ne xidma boobu duñ ci jëlee neen yàlla du du neenal jëfi kuy rafetal bu dee jëf jooju aju na ci nangu te xam nañ ne jëf ji yàlla daf koy nangu ndax ñun amul benn sikk ne bakkan nekku daraay daraay bakkan nekku ci te lu tax ñu wax lool ñun xam nañ ko kon ñu ngi sant yàlla bu baax di ñaanal mboole mbokki taalibe yi nga xamante ne heure bu nekk dencuñ seen i dërëm dencuñ seeni i xel dencuñ seen i kàttan ngir xidma sëriñ bi eh, di sant si sa zaman mi nga xam ne eh, Youssoufa Diallo xam ne moom it mbooleem liggéey yi mu ngi ceeg ñun ci tool yi ci tabax yi ci eh, ci séddale xar yi ci séddale ceeb yi ak yu loolu lépp yëpp yu baax yu sëriñ bi nekkoon la ñeneen bu ñu ñëwee fekk ci ko tamit dañoo fekkoon ne mi ngi ba pare moo tax dara du yàqu dara du jaxasoo te sëriñ bi wax na ma bu yàgg ne ma ñuy def lu baax ñuy def lu bon mu ñu leen tere seen baax boobu comme dañuy continuer rek nekk ci lu baax bi utuñ ci sant nit waaye ngërmande yàlla lañ ci soxla ndax wal xayru laa budda min shukrin alayhi yura li faa'ilihi walaw taalat lahu lmududu kon ñi ngi sant yàlla bu baax di dolli di gërëm ñi nga xam ne ñi ngi ñun ci liggéey bi Mouhamad Ndaw mi ngi ci heure bu nekk fàttewuñu ñoom Cheikh Ndiaye nga xam ne dañoo jaay seen noflaay yëpp ngir liggéeyal ñu rek liggéeyal sëriñ bi yaa na leen yàlla fay loolu yàlla dool leen xéewal dool leen yëkkatiku bu kenn gis wàññeeku ci boppam euh, euh, ndax gis wàññeeku sax yenn saay ku déggul yàlla mun na koo tayaloo ci jëf lu baax waaye ñu ngi ñaan yàlla bu mu nattoo kenn gis wàññeeku ci mbiram ba mu xam ne li muy def nii yokkute rek la ciy jëlee wa ma dalika ala bi aziz euh, mbokk yi ñoom Oustaz Ahmad danañ ci gën a yaatal luñ ci amoon rek mooy kaddu sant ak ak kaddu ngërmande ngir liggéey biñ nekk xamale lan la وني سنت يالله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واخر رك داي نديغال رك واي اموتول لونتي صف ولا لونتي كومونتير اموتول نخ ما ترك كلمه لقائل بايول دارا نخ بو واخي رك شيخ ماهي واخ وار نيو سي تك دارا موم نيو كاي نيانال يالا غيناو بو نيانال سيرن بي غود فال اك وير نخ موي موي قائد لي موي جيت لي كوم نوم كو نون رك لا معناه lenn rek lay lii di tëj si lenn rek lay wane mooy ni alxayru huwa al aslu yiw rek mooy cosaan mooy cosaan ci lépp te lii mooy yoonu yenant yi mooy yeen yoonu awliya yi mooy yoonu maamam ji mooy yoonu magam yi te ci loolu la teg tànkam it te ci loolu la teg tànkam daf koy wax toujours maanaam nit bu amee lu ko ëpp rek lu lu ëpp ay soxloom rek mooy ne dafa war a joxe mooy ne li li may nettali toujours ne sëriñ bi dafa am lu bëri lu muy reflété waaye njàngaleem yu gën a bëri ci côté social day reflété jamono xalifa al aadil Omar ibn Abdou Aziz ma daan wax ni jàpp na ne sax picc yi bu ñu lekkut ci moom la jël leen jël leen dugub yi ngeen tasaare ko ci montagne yi picc yi sax bu ñu lekkul moom la ma ciy nettali benn anecdote rek ci fu ma toog dinaa ko nettali ci lumel mel nii ci jamono Covid bi yàlla bu mu fi amati confinement bi sëriñ bi damaa ñëw fekk ko mu toog buñ confinement mu toog ma gis ko mu ci benn suura bu ma bu ma jaaxal mosuma ko ci gis ma ne ah sëriñ affaire yi de kii na mu ne ma benn baat la ma ñi doon ñëw fii ñu leen di jox silmaxa yi ak ñi ñàkk ñi fan lañ lan la ñuy nekk noonu la ma ko waxee ci confinement bi moom kese ci néegam lan la ñuy lekk maanaam loolu rek moo ko ñor te loolu la jàngale loolu la wane waaye loolu la jëf te loolu lay digle donc wax ji mën na bañ a bari sax maanaam tey image yi si se zaman di wax rek doy na doy na waaye moom loolu la jàngale loolu la wax maanaam jaamu yàlla yi mooy mooy lépp te comme ni mu koy waxee saxaaba yi bu bu demoon ba ba ñu ñàkk dañuy génne li ñu am yëpp ku am milliard ku am mille franc ku amul ñu séddoowaat fa fa ci jamono ji naqadi ci jamono ji naqadi ji ah, tol ak ci yu mel ni nga xamante ni nit ñëpp dañoo war a bég waaye lu may tënkee mooy ni lii njàngale la bu nga xamante ne ñun ñëpp ci war a roy mooy ni ku am ñaar joxel benn ku am ñett joxeel ñaar sëriñ bi dencalul boppam dara moo tax du ñu tëjlul di ko ñaanal di ñaanal njabootam gi di ñaanal suñu mbokki taalibe yi comme ni ko Cheikh Ibrahima waxee léegi yàlla may ko wér yokk wërsëgamam jàppale ñiy dimbalanteeg moom ci lii ba mu law waaye yàlla mayet mbokki taalibe yi ilham ñeneen ñëpp nekk ci lii ba yàlla mën dimbali ñu jotul seen ñu seen loxo jotul seen ginnaaw ba bis nii su jotee ñu mën a nekk comme ni ñu war a nekkee comme ni ko diine ji santaane comme ni ko Maulana Cheikh doon defee magam ju baax ji radiyallahu anhu imaam Hassan doon defee comme ba tey nii noonu la ko imaam magam bi ñu ngi koy ñaanal wér imaam al akbar di ko defee yàlla may leen ñoom ñaar fan yu gudd bi jaay rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ma zalika ala bi aziz Euh, lu mel ni euh, di gàmmu euh, ba si juddu sang-sang yi sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam buñ jugee ci loolu mu ngi ci korité yi ci tabaski yi ci yeneen yoo nga xam ne ni yu demee ni yu mel nii day faral di def ay social yu am solo di ko yëkkati di ko jëmale ci mbokku julliti ak mbokku taalibe yi ak ñi nga xam ne ni tey jii nii ay néegu doole leen leen di tuddee di jël ay ndimbal ak ay partenaires am yi nga xam ne ni ñoo ngi à travers le monde di ko jàppale ci lii macha allah ñu ngi nii commencé liggéey bi tey jii nga xam ne nii mooy alxames euh, euh, alxemes waaw euh, ànd ak ay doomam ku mel ni Cheikh Ibrahim Cissé yoo xam ne nii liggéey bi du ci sooxe benn yoon. lépp loo xam na ni sëriñ bi woote na ko rek kenn du ko si jiitu mooy si bopp ba ku mel ni oustaz Ahmed Diop waaw ku mel ni euh, euh, oustaz euh, Ousmane Diop ak ñu demet demet gis ngeen ñu ngi nii ni ñaa ngi ñëw di jël si seen i ndimbal gi xam ne ni Cheikh Mouhamadul Mahi moo leen ko jox macha allah yéen a ngi gis jàngalekat yi nga xam ne ni ñoo nekk ci centre Al Fityaan Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Aliou Cissé ñoom ngay seen noonu ci bunt bi ñuy tànn seen xar pour tabaski 2023 ustaaz yu nekk foofu noonu ak ustaaz yu nekk al mahad al islami al mahad islami afrique amérique bu magam imam Hassan Cissé radiallahu anhu ñoom it ñëw neen jël si seen ndimbal ci fii nga xam ne nii mooy kër Cheikh Mouhamadul Mahi eh, eh, Seydi Aliou Cissé ñu fekk ay mbokku taalibe nag ñu ko fu nekk macha allah ñëw di dimbalanteek eh, ñun ci liggéey ba am solo bi macha allah dañ leen di bàyyee antenne bi rek ngeen xool image yi ñu ñu taataan beneen mbokku taalibe ay kàddu fii nii soobee yàlla. salaamaaleykum uh, uh, oustaz maa ngi lay ziyaara bu baax uh, fan yee ci ginnaaw rek daje woon neen ci centre alfityaanu Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Aliou Cissé ñi ñëwaat tamit daje fii nga xam ne nii mooy seddale yi nga xam ne nii mooy social bu sëñ bi di def at bu jot ak programme yu demee nii ci euh, tabak sibi euh, tay lan nga ñuy wax euh, tay encore une fois ci benen gis-gis bi nga am waaw ma ci waxoon rek laa ci waxar rek kontaan bi ñaanal sëriñ mhm. bi. yalla may ko fanu wu gudd wàll yu gërëm ak njub sam mako sam mako njabotam di kontaan bu baaxa baaxa baax wax deug yalla kontaan bu baax sant yalla bu baaxa baax. yalla yalla may ko fanu wu gudd wàll yu gërëm lepp lu muy def rek ñepp gis nañ ko ñu ngi sant yalla bu baax di bu ci wax dëgg yàlla lépp luñ ci wax da xam bu ma la waxon rek di ko ñaanal yalla di gëna ñaan ko yàlla yàlla may ko fan gudd wen wér sàmm ko sàmm ko njabootam ba yàlla mënul yàlla ñu ko yàlla defal jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullah li la wax pare na jërëjëf shukran waaw jërëjëf gis ngeen kooku oustaz Ali Mbaye leen koy wax moom it mu ngi fii nga xam ne nii mooy almaad al islami afriqi amérique yi ah, di liggéey liggéey ba am solo foofu noonu moom it ah, korob ba nga xamee ni nii ah, ay fan ci ginnaaw mu ngi woon fi nga xam ne nii ñu ko doon séddale don yi Euh, ci ceeb ak euh, ci préparation bi ceeb beeg diwlin beeg meew beeg yooyu noonu xam nga yooyu noonu yëpp ak macaroni bi léegi tey jii nag li ci aaju muy wàllu ndawal ci leen toll nii moo tax tey jii nii ñëw ñu ñëwaat jëlaat ñi nga xam ne ni ëpp doole yëpp jëloon neen seen euh, bagage yi ci ci affaire yi ci donné bu njëkk bi ceeb yi ak macaroni yeeg meew yeeg yu demee noonu ñu ñoo ñëwaat ak ñeneen ñu wuuteeg ñooñu ñëw jël si seen wàll tamit ci euh, euh, ndawal gi ndax ko am ceeb diwlin war ngaa am yàpp boo ci def sëriñ bi gis nga ay affaire am noonu la moom affaire yi day mat rek macha allah amut cof lii bàyyi lii su yàlla rek beneen yoon gudd fan bu bëree bëree bëree bëri parce que ñu mel nii sak leen ci réew mi tiitar leen di leen ñaanal yàlla war na mbooleem jullit ak mbooleem taaliba ku dul jullit sax war na leen a ñaanal yàlla parce que ñii am nekkul ne dañ ko jël Diko jëfëndiko diko ñoom ak seen famille wala ñoom ak seen entourage waaye nit fu nekk lay bàyyeekoo di ñëw pour jël si li nga xam ni mooy lii muy def at bu jot ak ludut at bu jot sax chaque jour ci lii la dëkk macha allah dañ ne li tax ñu ne at bu jot parce que tabax si at ak at la waaye ludut at bu at ak at sax da ngay gis ndimbalam mu ngi jenn waxtu nekk siise di ko ñaanal yàlla rek gudd fan bu ànd wér yaa rabbi yàlla ya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 ama baad ñu ngi ziar ñëpp di ndokkeel ñëpp euh, di wax ne sëriñ bi li muy def nii dafa pratiquer xadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ah, soxna xam ne dane ki gën ci doomu aadama yi mooy ki nga xamante ni day dimbale ci alalam te imaam dafay wax ne baax weesuwul ngay dimbale ba dimbale koo xamante ni xamoo ko mu ne foofu la baax yëpp euh, mu nekk loo xamante ni initiative bu rafet la boo xam ne chaque année day yëkkati lu tolloog 40 millions yoo xam ne da koy génnee jox ko euh, jaamu yàlla yi pour ñu koy tabaskee ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen gannaaw loolu dafa nekk loo xamante ni yàlla amul sikki ne yàlla da koy bind si misaan xasanaatam te ñu ngi ñaan yàlla yàlla gën koo yokk ci zaaxir ak ci baatin bi jaar rasulillah sallallahu alayhi wa jërëjëf kàddu yi am na solo trop ñu ngi lay gërëm di la sant yéen it ñu waaw leen góor leen leen wax parce que noppu leen benn yoon yéen a ngi jàppale sëriñ bi ci éducation bi nga xam ne ni moom lay defal xale yi bañ na ko ba dafa créé centre al fitian Cheikh Mouhamadul Mahi Seydi Aliou Cissé yéen yéen a ci nekk di jàppalante moom macha allah gàcci ngaalaama di leen ñaanal rek yàlla defal leen fan wu gudd ba ànd ak wér waaye duñ fàtte sëriñ bi benn yoon duñ fàtte ay magam ak i mbokkam ak jarbaatam ak i xaritam ak i soppeem ak mbokku taalibe yi nga xam ne nii képp koo xam ne nii a travers le monde jàppalante nga ak sëriñ bi ci ak programme yu mel nii ak yu demee noonu ñu ngi lay ñaanal yàlla lépp loo ci mën ren yàlla na nga ko def déwén lépp loo xam ne nii tamit yaa ngi koy sonnee ci sëriñ bi yàlla na la ko yàlla fulandil ba nga yëg ko yaa rabbi ya allah ñu ngi fii suñu rak ànd ak suñu rak Mambaay Diop moom it muy doom ak taalibe si kër gi Oustaz maa ngi lay ziar ñu ngi lay ziar salaamaaleykum Niass ba defoo dara Niass ñu ngi lay ziar bu baax a baax waaw Oustaz gis nga yu mel bu amee nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi nit ñi dañuy kii nit ñi nit ñi nit dañuy dañuy kii da fiy gis façon kii bu nekk mais gérer rek incha allah donc rek déplacement bi bu mu bu bisimilah rahmaani rahim ñu ngi sant yàlla bu baax di julli ci bi sant yàlla bu baax di wax alhamdulilah rabbil yàlla mi ñu may ñu teewee lii nii teewee ko ayaat teewee ko ñu ngi ñaan yàlla yàlla tey may ñu ko ay at yu bëri ñu ngi ziyaara xalifa bi Cheikh Mahi Cheikh Ibrahima Niass xaadimul umma ñu ngi ziyaara tamit suñu imam imam al akbar Cheikh Jaan Ali Cissé waaye ñu ngi ziyaara tamit suñu directeur général Cheikh Mouhamad Maay Aliou Cissé mi nga xam ne dëgg-dëgg moo moo waral lii ñëw naa nag ànd ak samay ustaas ñiy jàngale ci école bi man nañ juróom fukk ak ñaar ñoo xam ne jël nañ fi tey xar juróom fukki jàngalekat yoo xam ne ñi ngi jàngale ci école bi bu imaam Assane Cissé radiyallaahu anhu mi mu fi bàyyi wàccee ko woon rakkam suñ dimbalal magam ñu yore ko ci école bi ñoom ñëpp ñëw nañ jël si nañ ku nekk jël na sa xaram tabaski te du ren rek ay at yu bëri la mën naa wax ne depuis 2002 ba léegi képp ku jàngale école imam mën nañu wax ne école bi moo lay jox xaram tabaski ci ndigalal Cheikh Mahi ci depuis imam Assane ba ci imam Cheikh ba ci Cheikh Mahi mii ñu ngi leen di jox ñoom ñëpp jël nañ comme ni nga ko gisee ci film yi taxaw naa leen ba ñoom ñëpp ñu am xam naa ku ñëwagut da nga nekk ci yoon égyptiens yi tamit mooy ñi nga xam ne ñoo jógee Égypte di jàngale ñoom ñu ngi jógee Égypte di jàngale ñoom it ñu ngi leen war a yónnee seen yëg seen kër seen tabaski yi ñu sant yàlla bu baax di ñaanal sëriñ bi lu mu mën ren déwén yàlla mën lu ko ëpp yàlla may ko wér may ko kattan euh, guddal fanam jëlal ko yaatal wërsëgam yaatal càkku cafam ñu ngi ndokkal umma islam bi yëpp ndokkal taaliba Baye Niass yëpp ak fi ñu mën a toll euh, yàlla may ñu fekkee korite ak jàmm te yàlla nangul ñu ko nangul ñu tabaski dégg nga yàlla maye wér maye kattan suñu kilifay diine yi nga xam ne ñoo ŋànk pay bi ñu ci amul wér yàlla may leen wér gu yaram may leen kattan delloo leen seen sago delloo leen le ci lañ doon liggéey ñu def ko maa ngi sant équipe bu sëñ Mahi bi yëpp macha allah waa këram ñoom Ousmane Diop Cheikh ibrahim mi nga xam ne doom ñoom ñëpp taxaw nañ organisation bu jekk kenn ku nekk boo ñëwee da nga jël sa xar doo fi sonn sonn yenn xanaa yow nga xawa a rek waaye boo defee ndànk rek organiser nañ ko organiser bu baax macha allah ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal équipe bi yëpp di sant tamit euh, euh, média bi lii tamit def lu baax wane ko dara neewu ndax am na ko bëgg a def lu baax bu ko gisee moom te dina xam ne nekk te def lu baax baax na moom it mu ñëw participer mu gën a baax ñu ngi gërëm ñëpp ñu ngi sant barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa miimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan